tijaani ji maa leen ko mën a wax lu jàngoroy sëriñ de déedéet gis nga nit dafa doy waar ni ko yàlla suñu borom bindee moo doy waar ba nit boo ko faatee ñaare ñiy faat nit ñëpp te duñ ay militaire parce que militaire rek la yàlla may loolu militaires yi xam ngeen ne moom ñoom yàlla def leen may loolu maanaam mën na di rey ay nit di rey te du duñu dox du leen wàññi dara waaw mais ku dul militaire parce que militaire ci ndigal lay dox moo tax yàlla ci ndigal la ko la ko teg muy dox ci ndigal donc yàlla moo koy aar di ko protéger mais Nabou Leye c'est pas le cas nit la innocent la léegi bu fekkee ne moom dafa bokk ci ñi rey laa wax bu fekkee ne bokk ci ñi rey signe bii ma gis ci moom te dégg ko mooy day dof man maa daal di maa leen wax loolu bu fekkee ne rayut nag bu fekkee ne laa wax moom rayut ah waa këram bu leen dem ci benn sëriñ di ñaandu parce que kaso moo mel noonu kaso boo ciy doog a dugg doo ko gëm da ngay yaakaar ne da ngay dugg rek mais dangay ñibbi sa kër. mais kaso dafa am réalité parce que kaso boo duggee ban tàmbale laa rappel maanaam matin 6 heures du matin heure julli dañ leen yee ngeen jug yéen ñëpp bu ngeen jugee ngeen génn ci biti maanaam chambre bi kenn du ci des yéen ñëpp da ngeen génn ci biti toog sukk ñu leen di woo benn par benn Mamadou Thiam nga ne waaw ñëwal Ibra waaw Fatou Mami nangam ngeen daal di ñëw waaw gis nga booy naar booy naar doo mos a lu baax te sama numéro téléphone li mu ci bind mooy bada doomeraam la ci bind te booy naar barke Sidi Biram Fall su ma la tëggalee biir si ci réew mi Sénégal gii dina doy waat parce que li ma la xamal dafa bëri yow li ma la xamal dafa bëri te su ma taxawee ne booy naar yor naa say kooy war nga maa gëm parce que yow dañoo bokk benn appartement ak maag booy naar mu ma présenté ko sama gel barke Alxuraanul Karim ñu mu yàpp ko ci otoom dem ñu yóbbu mu yóbbu ñu abi gër booy naar laa wax de mu yóbbu ma abi gër maak sama gel man ma wàcc dem ci abi nduur bi ma demee ci abi nduur fekk boobu dama dama ko doon nuyu avant may dugg ci restaurant bi fekk naa booy naar di jël sama numéro téléphone gel man bi mu jëlee sama numéro téléphone gel ba pare loolu doyul de billaahi wallaahi wa taalaahi barke alxuraanul karim bi mu jëlee sama numéro téléphone ba pare booy naar xam nga nan la def nan la def yow yaa invité booy naar noo xaaral bu ko invité wuy ma defal parce que li may wax ni daf ma intéressé bu la invité gu mbooy naar ma ñëw bi mu jëlee sama numéro téléphone gel ma jàpp ne xaritoo la rek ma ne ah garaawut booy naar dama wàcc cité mixa dem di jënd booy naar ne ma maa ngi ñibbi sama kër tàggu ma bi ma tàggoo dem ñibbi man ma wàcc bitig bi di jën taseeg booy naar ci oto bi ndeke yab na sama gel di ko yóbbu jaw léegi ma ñëw ci kaabi yi kaaw na Leye léegi parce que kaa bi daf ma ñor kaa bi daf ma ñor waaw cas bi daf ma ñor président Sénégal merci kii Fernando la dafa changé kon euh, tour Fernando may wax ne Nabou Leye sa xarit la sa nit la parce que yow cas bi yow yaa ko njëkk kaa cas yow Fernando loolu sénégalais yi xamuñu ko te keroog bi dig di woo keroog bi dig di woo Nabou yéen ñaar yéen a doon déggante téléphone bis bi bis bi dig woo Nabou Leye Nabou Leye dem di wuy ji mi ngi déggante. Fernando téléphone loolu dafa leer waaw ñoom ñaar ñu doon déggante téléphone kon xaritam la gaayinam la ba tax lii may wax moom dina ci xam dara mais dama ne ay mbokk Nabou Leye Nabou Leye bu tëddee kaso di yuuxu ah xaaju guddi di yuuxu loolu du mbirum sëriñ man maara di peuple maa leen wax loolu su ngeen yóbboo seen xaalis ci sëriñ da ngeen koy ñàkk da koy lekk mu jeex tàkk parce que du mbirum sëriñ du mbirum sëriñ Nabou Leye ay rab jàpp ko jinne jàpp ko dofut dara dalu ko kirim nag moo am kirim bi am bu fekkee ne Nabou Leye dafa bokk ci ñi rey Aziz Aziz Dabala ak signes yi ngeen mooy wax ne moom lay Nabou Leye di def Nabou day dof kenn mënu koo téye man maradi boobu maa leen wax loolu bu dee yi yii parce que man def naa kaso du benn def naa kaso du ñaar yàgg naa bokk ak ay reykatu nit ñoo xam ne maa leen fekk ñoo xam ne ñoom fekk ma gis seeni i signes nii commencé ba xëy dof ci kaso bi dañuy dañuy def seen i di yuuxu di di di di di dugg ci duus yi ah di def naka sudul noon di tàngal nit ñi ba dof dof boobu kenn mënu ko faj moog dofu yàmbaa ñoo yem boo tuxee sa yàmbaa ba dof kenn du la faj kenn du la faj de dofu yàmbaa ak dofu rëy nit. kenn mënu koo faj sëriñ bu ne la mën na koo faj day lekk sa xaalis bu leen dem bu fekkee na nga nabu lëy rayut nit bokkul ci ñi rey bokkul ci ñi rey laa wax de bu dee bokkul ci ñi rey ah moom insha allah rabbi loolu du mbirum nekkul mbirum ay liggéey ay yooyu xam nga mbirum lan la stress stress ci kaso day def loolu parce que kaso boo ci duggee premier jour da ngay yaakaar da ngay dem ñibbi deuxième jour noonu troisième jour nga commencé gis réalité yi da ngay xam ni fii ndeke yow bu dee cas bi la fi indi dafa dafa danse nga xam li la fi indi li la fi indi xam ne yow yaa ko def li lay toppee nga xam ne yaa ko def loolu beneen nit ngay nekk parce que da lay leer ne fii moom abadan doo fi génn loolu rek stress la stress bu rëy rëy la kenn mënu ci dara stress la da ngay tëdd di gént doo ko tey da waxtu doo ko tey nit ñi dañuy wax ak yow doo leen dégg danaan la kaay lekk dèjà da ngay seexlu lekk bi parce que kaso ku musul dugg kaso nabu lay musul def kaso musul dugg kaso di bu demee kaso ceeb yeen ko fay tegal da koy seexlu te faaw nga lekk ci sa moromu prisonnier ya ngay lekk ndool daf nag leen di seexlu te faw nga lekk faaw nga lekk ak ñoom parce que boo nekkee ci kaso bi xeeb leen doo fa mën a am jàmm doo mën a dallu di duus fa ngay puubee ak fa ngay sawee ci biir néeg bi la nekk ci biir chambre bi maanaam li ci gën a garaaw mooy chambre la boo xam te ne bi Nabou lay nekk ay six personnes ñoo fa nekk mais xam nga ki nga xamante ne nii tàmmul ak nekk ak ñu mel noonu ah ay jigéen ñoo xamante ne doo xam nu nu mel ay bandi kacapan pur parce que chambre six personnes fu ngeen ko déggee mooy chambre criminel yi fi reykatu nit ñi nekk mooy chambre six personnes yi kaso ma ci am xam-xam de ay chambre neuf chambre dix yooyu boo fa demee day bëri ay nit parce que foofu dañ fay indi ay flagrant délit dina am ay raykat nit mais ay raykat nit yama yam mooy anciens yi ñu yàgg ñi wala yenn fee yi agresseurs yeeg yooyu banditisme yi ñu boole leen def leen paquetage mais bu dee crime yu doy waar yi nga xam te ne raykat nit yu garaaw yi ñooñu da leen di ber ay deux ay trois personnes ñooy bokk chambre ay cinq personnes ay six personnes ñooy bokk chambre parce que dañuy bañ problème dañuy bañ ñu jaxasoog yenn nit yi parce que bokkuñu ay fee moo tax moo tax problème mu nabu lay bi dafa garaaw de problème mu bu lay bi dafa garaaw man bu ne ma woon Sambour ba mu nekk sax ay Sambour 11 laak Sambour 25 ak yooyu damay d'accord parce que Sambour yooyu dafa bëri ay nit foofu boo demee da fay fekk ay ay 200 personnes 100 personnes ñoom ñëpp yéen ñëpp ay bokk Sambour bi mais boo déggee ñu ne dañ koo ber ci Sambour rek mooy criminel bu mag ba Sambour kaso criminel yu mag yi dañuy ber. man kay maaraadi boobu maa la wax loolu maam ñi def crime yu mag yi crime yu doy waar yi ñoom nañuy ber foofu ay six personnes sept personnes affaire yooyu cinq personnes ñoom nañuy ber foofu dafa metti ay raykat nit yu dof nga fay fekk yu këx yoo xam ne daanaka doon wax sax parce que xam na seen àdduna jeex na ñooñu mooy ñu ni tëj ay vingt cinq ans trente ans perpète ñooñu nañuy dajale foofu ñooñu xam na ne seen àdduna jeex na bokku ñoo gars yi sax monde bokku gars yi monde ñooñu kenn du leen boole ku ñuy tëj deux ans yooyu parce que mën na mën dañ lay bañ ba ba xëy rey la sax ba moytu parce que dañuy dañuy jaloux dañuy jaloux ay penu deux ans danaan la penu ginaar la ñoom loolu lan lay wax lan naan la lii penu ginaar la waaw bu dun la bëgg a gis ñooñu duñ bëgg a defanteeg borom penu cinq ans yeeg dix ans yeeg yooyu bëgguñoo defanteek ñoom moo tax ñu leen di ber cinq personnes ay sept personnes loolu la kaa bi demee man miin naa kaso xam naa ko lu ma leen wax bu yeboo ngeen takku téere parce que damaa dama koo dund man damaa dund damaa mos kaso mosati kaso mosaat kaso man xam naa kaso bu baax a baax a baax xam naa ni muy doxee maa la wax loolu penu deux ans ci reykot nit penu ginaar ki nga xam ne xalaatul génn wala vingt ans mu war koo purgé yow nga ñëw naan ko ay deux ans bu ko fat non du la sax du sax lijjanti daan kii da ko yàpp même boole ko cinq ans penu ginaar la daan kii day génn léegi nii billaahi léegi nag mbokk labu lay yi parents yi bu dee yéen a may dégg sëriñ bu ngeen dem dina lekk seen xaalis sëriñ mënu ko faa génne sëriñ munu tax du daanu crise sëriñ mënul tax nabu lay jaay yërëm ko wala seen yaram daw lenn kott dong ngeen koy dimbalee mooy di dem di ko visite di ko seet di ko yóbbul ay yére ak lekk ak naan ak xanaa ay couscous ak yooyu parce que ku nekk kaso yooyu nañ koy jox mais li ci des ngeen bàyyeekook yoon yoon def liggéeyam bu yoon demee taxaw ba ne nabu dafa set alhamdulilah rabbil bu nee setut ngeen xam ne nabu setut ngeen gëm yàlla xam ne nattu yàlla la bu dal ci kawam parce que nabu lay tey bu sañoon tey jii nii ku ko waxoon ne tey moo Aziz Dabala day dee moom mu dugg kaso du ànd ak du mës a ànd ak Aziz Dabala ci àddina parce que lii dara jaru ko ndax asi Dabala sax moo leen gën demin fi mu toll nii ndax Aziz Dabala lu mu bon bon ñun xamuñu fu mu nekk waaye noppalu na ci àdduna bi moom wax dëgg yàlla parce que àdduna gi rek dafa metti nekk sénégalais rek dafa metti nekk africain rek nattu la barke Alaaji Fàllu Mbàkke nekk africain dong nattu yàlla la billaahi ñun ñoo ngi nii duñ dem dégg naa yàlla bi muy sàkk nit ku ñuul la koo sàkk pour mu seetaan si moo tax ñun amuñu fi benn njëriñ nit ku ñuul moom yéen xam ngeen ñun mënuñoo defar sax puso puso bu normal original ñun mënuñu ko defar ñun duñ defar ñun dañoo seetaan si dañoo seetaan chinois bi di commentaire ak tubaab beeg yooyu nekk di commentaire ak yooyu gis nga ko même TikTok bi ñu ko joxee sax ay saaga nday dañ fi nekk ak yooyu xaste xuloo jow ñun loolu lañ xam mais duñ ci liggéey c'est très rare fii laay toog ba tàyyi na leen dee leen dem ci Bamba Electron borom climatiseur yi borom télévision yi mais du ngeen ma faale parce que bëgguñu koy liggéey te Bamba Electron jigéen la ma ngay jaay ay matériel am family business naar te mu nekk Sandaga liggéeykat la buy live ngeen dem ci live am tapateel ko mais du ngeen ko def te kuy jaay Sandaga moo la a jaay te tey nag 1200 personnes yi fiy seetaan déglu leen ma. naar family business may na ma ay yére dina ko maye léegi ci live bi bu kenn dem na ngeen tapoté partagé bu kenn dem laa wax sama waay da jàmm ñal jaara busut mañ se bi